Yo mbokki Sénégal mbokki amateurs yi Dieye production moo woote le 12 mars ca arène national Dieye nee na day sargal jigéen drapeau Mame Diarra Fam jigéen gu mën góor la lion de ginnaaw raay moom la Dieye production jël mbokk yi daal di koy jox combat bi war a dox ci diggante ñaabu ndaw l'espoir sûr de Guédiawaye ku mu ko jox ñu ne Tafa Gueye numéro 2 l'espagnol ki jommal xale yu baree bari waaye mbokk mi ci bés boobu noonu Dieye production nee na Thione Seck numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak fils de Ndéné ñànku numéro fa ak manko mbokk yi Douglas dina fa jàkkaarloo ak l'heure 2 reenu guy ak ombre ci bés boobu la ñuy bëre géant bu benn baraak jàkkaarloo fa ak serpent grand yoff Kélémanso jàkkaarloo fa ak Boy Diop numéro 2 caatu piol jàkkaarloo fa ak Boy Silla jaay doole ak O Karim bés boobu la ñuy jàkkaarloo mbokk yi waaye nag combat bi nga xamante ne nii moo war a dox ci diggante Boy Sébi ak Ñang Baalo itamit ci bés boobu la mbokk yi lamb ji nag en live pay view ci seen affiche ngeen ko mën a amee Sénégal nag ngeen mun ko jëndee 1500 francs xam ngeen ni dafa yomb lool lool 3 euros 99 tribune supporter Dieye production nee na 3000 francs la annexe loge 5000 francs loge 10 000 francs kii Dieye production lamb namoon na ko waaye bu la duusee ñu xam ne moom mën lamb ah,

yaay naanaan ak alxuraan karim kii yow doo nit. naanaan oh, ay bool ay bool kenn du yow. déedéet naka waar naka Dakar ana Garga. bu si Garga bàyyi na bëri sama waay ah bàyyi déedéet bàyyiwul. Ah, Garga bàyyi na waaw. am na combat. waaw. ki muy bëreel daa dugg ñëw di jël grand frère Jokkel maa ngi woo waa waa Fatick yëpp ñu ànd ak ñun parce que sos waa Fatick la su soobee yàlla ak yarante bi incha ñoo koy ngemb ànd ak moom yóbbu koy stade waaw. la aada suñu rakk la waaye suñu doom lay bëril képp kuy séeréer ñoo ngi lay ñaan. nga ànd ak Zos ñu ngemb ko yóbbu ko mu daan Ada Fass jël bu amul benn werante incha allahu. Paul. waaw comme ni mu ko waxee nit mbokkam waaye Zos maa ngi lay xamal nag ne kii di président Kéba day koo xamante dafa fort ci Sine dafa bëgg Sine donc bu amee bu ñëwee fi ànd ak yow pour ñu jàpp ñu ngi woote aussi képp kuy séeréer yow doomu séeréer nga yaa ngi dégg ah. képp kuy séeréer aussi ñëw jàpp ñu def bloc derrière toi. pour yàlla may la ndam parce que Kéba nag li mu bëgg ñun waa Fatick ñun waa région de Fatick ñun waa département bi moom lañ bëgg te comme yow la àndal dañuy dañuy ñun faral yàlla na yàlla may ndam ñëpp nañ si taxaw nag bu soobee yàlla. sos bi gëj na la. waaye maa ngi sant. ci la ne. foogale séeréer ma ay simnaa noonu jokkoo ñolo baax. waaw mi ma séeréer ma ma paal. waaw la nga war a xam nag. <laughs> lan moo war a sa teewaay Fatick. waaye mooy Kéba Kanté rek lépp lu bëgg ñu taxaw. da nga tey jàng teewaayu Paul Maurice ñun ay mbokk lañu ak kii noo pogum kenn mënu wax ba duñ ay mbokk yaa ngi dégg ñun Fatick la ñu am sama maam yaa ngi fii fii leen denc yaa ngi dégg man waa Fatick la kenn gënu ma dëgg Fatick di jàppale Kéba di jàppale sunu papa Cheikh Kanté lépp lu mu bëgg ñu tax ci rëpp leer laa lay wax lépp lu ñu bëgg ba mu ñuy jàppale dara dul dara chaque combat mu génne ay moyens duñ ko jox yaa ngi dégg lépp lu mu bëgg laa ñu taxaw na moo taxaw tey bésam bi tey ñu ñëw teew fii loolu famille la wax naa ko sànq si si bi ñu gisee famille la Kéba ma ngay xam vingt ans la am vingt et un ans du léegi vingt deux ans yaa ngi dégg sans frère la. bu ñu <laughs> moom moo njëkk a gummee si moo njëkk a gummee moom a kii leer laa la bi may bu ñu xullee bu ñu ñëwee ci papa ji papa ji eh, sa sa sa la sa rakk la waxuma sa frère la dem leen ngeen samay nekku ci kon kii sama lépp la. leer laa lay wax lu mu dugg ma dàq ci rëb boobu tey laa la koy seedal tey incha allah. Mbaye xamul woon sama tur Boy Zoss la ma doon wooyee. xamu leen mais kii du maam am samedi ak la bés doxul diggante. nga am combat mu def benn appel léegi. nekk loo xamante ne nag xam nga lu ñëpp bëgg rek. Kéba ñëpp ngay xëccoo wax <laughs> mu ne sama Kéba Kanta moo tax ñii laay def yaa ngi dégg waaye sama ma xam na bu ma koy nga am combat mu def benn appel. woo siin jaarale ko ci Paul Maurice loolu mu def ci yow. waaw xam nga loolu du gulet xëy na léegi la ko gars yi ràññee mais nag ma ne Kéba moo ma ci man la njëkk a dugal mbër làmb kon maa ngi du léegi. c'est que yàlla rek bu tappalee nit gala da koy nangu dem na ba nekk autorité am fu mu toll ci réew mi ba jotoon may ko yenn affaire yi du nekkul surprise man xëy ñu xamul mooy nekk surprise ñoom wax dëgg yàlla ne ko si man ndax yàgg na ma ko def ci waaw mais mooy li ma la ay mbokk lañ okkino pogum laa la wax yaa ngi dégg tey appel mu def daf ko war a def mooy fierté mooy siin yëpp dañu war ne ci ginnaaw seen doom yaa ngi dégg Kaolack sama sama sama nijaay ñoom Assane ñoom Dieng ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, ñoom euh, ñoom ñëpp euh, sama sama sama temps yëpp bàyyiwuma kenn yaa ngi dégg tukaar joyun taata gin mbee lankij mbee dab ah ñaawul ha ah, min mari kadi ma komin mbeɗo guiƴo maram gueno ah, meɗo goɗam gueno refima par seeɗo refum magi jangatayi de mais nagi seeɗo ɓe ganda yeyi jangga nag par ce que ɗo gayi jibbere boy bo dansé ga jegui mais he jaga seeɗo a degré engrais mooy problème mais naa ko assurance def ko séeréer Paul Maurice sama frère la Paul Maurice sama frère la sama deret la déglu rek kii sama lépp la sama deret sama lépp la dafa bokk ci man bu ma jàppalee daf ma war a jàpp ma jàppale daf ma a jàppale kii sama mbokk la yaa ngi dégg xam na ba ma ñëw Abdou waxal doon jàppale ñoom Etienne Sarr ah ñoom Eli Bikol barki alxuraanu Karim ok ñoom ñëpp dañuy ñëwaat incha allah. yaa ngi wut wàllu de. wutuma wàllu combat bi weetuma ci damay sant yàlla ndax say mbokk ñoom wis combat bi billaa wala jaaxaan benn chose ngeen di gis. yaa ngi bëri booy bi saf sap. non sa saful maa maa saf ñoom ñëpp. te dinaa la wane maa la gën a saf bu soobee yàlla mais ñii ku la am looy waxati. booy bi INSEPS lay dem INSEPS du bëri. non du problème kii fi may yóbbu gën a gàllankoor INSEPS ngi waaju rëy. aada la. sa diggante ak aada loo ma la daf ñoo amel bor. dégg nga li mu daf ko yoreel bor la. lépp bor fay bor. kon di duma daan. dinaa ko incha allah. ko sa bopp. incha waxal ko sa bopp incha ko duma dinaa ko daan bu soobee yàlla. mën nga daan aada. waaw yow mooy yow ku gën a fort aara aara tamit. bu xaaree mer la fanaanoo de. xale la demagul fenn. aara Ndakaaru ngay waxal de. wax nii ñu a daan sa aara laa daan aara jaaxaluma waaw. kon ko jàngal bëre. boo tëddee bu soobee yàlla. di nga ko jàngal bëre. dinaa ko dinaa ko jàngal bëre jàngal ko xeex ñaari bi laa koy jàngal. sas Lamine dogoo ma xanaa. lamb na laa nam. Lamine xanaa a tàng ci lamb ji. lamb ji yaa ko yëngal. da ngay mel ni ko ngeen di mbasu bees. mais sa waay sa waay dafa ñu dem ci ci élection ñu def CNG bi ministre bi proposé na pour ñu def fédération moom mu ne day nekk candidat ndax moom doy na la pour mu jiite lamb ji. waaw mais loolu naa ko kii mooy jinne bu jinne bëgg a daxa ku yëg daanu ay ci doxalal teewaayu Zoss yi lu def ci yow waaw non mais du lu bees combat ma gi fii lañ ko préparé combat yu bari fii lañ ko préparé du lu bees si cumbukaayu Zoss laa njëkk taxaw sama frère la amul sama bés bu mag muy tudd muy jab mariage te gisoo fa sos combat bi aussi ñoo ngi si woo Papis général ndax moom fekke na. weer bi nag. non dañ leen di woo parce que aada daa woo ndakaaru ñun am nañ wàllu ndakaaru waaye dañoo am wàllu siin kon faaw ñu woo parce que combat bi mooy nekk combat bi dàq ci saison bi. kontaan kontaan nañ. Sénégal mbokki amateur yi Dieye production moo woote le 12 mars ca arène national Dieye nee na day sargal jigéen drapeau Mame Diarra Fam jigéen gu mën góor la lion de ginnaaw raay moom la Dieye production jël mbokk yi daal di koy jox combat bi war a dox ci diggante ñaabu ndaw l'espoir sûr de Guédiawaye ku mu ko jox ñu ne Tafa Gueye numéro 2 l'espagnol ki jommal xale yu baree bari waaye mbokki mi ci bés boobu noonu Dieye production nee na Thione Seck numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak fils de Ndéné ñànku numéro jàkkaarloo fa ak manko mbokk yi Douglas dina fa jàkkaarloo ak l'heure 2 reenu guy ak ombre ci bés boobu la ñuy bëre géant bu benn baraak jàkkaarloo fa ak serpent grand yoff Kélémanso jàkkaarloo fa ak Boy Diop numéro 2 caatu piol jàkkaarloo fa ak Boy Silla jaay doole ak O Karim bés boobu la ñuy jàkkaarloo mbokk yi waaye nag combat bi nga xamante ne nii moo war a dox ci diggante Boy Sébi ak Ñang Baalo itamit ci bés boobu la mbokk yi lamb ji nag en live pay per view ci seen affiche ngeen ko mën a amee Sénégal nag ngeen mun ko jëndee 1500 francs xam ngeen ni dafa yomb lool loolu 3 euros 99. tribune supporter Dieye production nee na 3000 francs la. annexe loge 5000 francs loge 10 000 francs. ci Dieye production lamb namoon na ko. waaye bu la duusee ñu xam ne moom mun lamb.